fajar bi baax na ba ba ngay sangu ba pare baax na nga sol sa yére baax na soo reppee ba dem jàkka ji ñëwaat génne ko amu musul ko sarax nga bu repp julli ji bàyyi ko ci kër balaa ngay génn kër gi ne azaka bi génn ci kër beneen bi mooy azaka kenn du ko toxal azaka muurum koor kenn du ko toxal dëkk dëkk da nga romb miskin yi jël sa azaka Dakar di ko yóbbu Fuuta jël sa azaka France di ko yóbbu Sénégal illa aw ma ku fi jox illaa aw ma ku ma ko jox mën nga kaa toxal soo amee koo ko jox kenn du toxal azaka muurum koor dañ koy génne ci ceeb ci mboq ci dugub hmm? yooyu yëpp dañ ko ci génne su nag yow nekk ko sa sa sa jabar bi ak sa doom bi mu ngi si dëkk ba dëkk ba yow yaa ngi yaa ngi fii waaw waaye dépasse mu ngi dem waaw acca da ngay génne waaw foofu lay génne wala fii fii ah fii waaw ah, nga génne ko joxe ko ne leen nga woole ne leen naa leen bismillah woor bi boros dara nekk